senegal ci yoon yi ay l'accident yu bëri muy waral ay doomu aadama yu bëri ñàkk seen bakkan lii nag moo waral kuréel gi ñu duppee Fadel prévention taxaw tem ngir yee wi waxtaan ak ñoom ba nag dem Touba àgg fa daw ndànk ci dal yaakaar ñu yëkkatu suñuy kàddu jëmee ko ci defar kon nag lépp luy tax ñu ñëw ci jàmm delu ci jàmm daawaat ñu def ko ñi jiit nag mooy safoor si ñu ubbi seeni xol yaatal seeni dënn dox ndànk bañ a xëccoo bañ a biijoo bañ a jëkkante sàmmoon teg code de la route wax ci turu sëñ Moustapha monsieur mu jëm ci euh, wàllum dawal meeg tali bi ngeen koy gëttandoo màggal gi di ko waajale màggal gi muy association Fadal Prévention sëriñ bi nag nee na mi ngi euh, dagaan ak ñaan mboolem kuy dégg kàddoom fa mën nekk ñu ànd ak ab yar akuk dal akuk teey bañ ngir ak bañ a yàkkamti ndax accident moom mm, naw dogal bi yàlla dafa am lu koy waral mooy mal dawal bu bu ñaaw akuk yàkkamti akuk ak jaar foo wut jaar kon nag nee mi ngi soññ mbokki chauffeur yi nga xam ne ñooy roto yi di dem ak dikk di bàyyi ko ci euh, gox yu wute jëm si Touba di yor ay nit daw ko daw ko ñëw ñu bàyyi xel bu baax a baax te xam ne euh, bu ñu yorooto ànd ak ay nit euh, yoratuñ seen bopp dong dañoo yor yeneen bakkan kon nag daw responsabilité la boo xam ne képp ku yor volant di dawal rek war bo respecté wul sa auto sax ngir mu baña a nga ngir dara war la ci war nga respecté nit ñi nga ñi ngi andal ni ngeen ko tuddé rek ab junj la bo xam ne daanaka lépp mën na ci waxtaan yëpp man na ci yam muy fadal préparation di ngeen ko tuddé bu nee tacc nga ni tek bu nee yank nga ni yoll ak nik jak ja te ñi fi ñëw nak kenn doon fi andilul auto yi ak safoor yi kon yi nag doxee ñu dañ ko wara xol bu baaxa baaxa ba a atum ren ni li ci xew bari na lool. ci ay jéye yoo xam ne lu ci nekk ñàkk a te code de la route lam la digal nga defe ko noonu moo sabab loolu waaye nag ñi ñuy yàpp dañoo war a xam ñan lañ waaye xam nga tey jii yàkkamti ndax nit mënut a yàkkamti ba wërsëgam mu jël lu wërsëgam du am ci kaw suuf kon nag ñu ngi soññee soññee boo xam ne adduna sëpp dañ koy maasaleen ci bis màggal gi ñu dëg nga xam ne amul lu moom noo wootee taalibi Sëñ Tuubaa yi jóg dina wuy si nag dana nu fekk ci jàmm nu ànd ak ñoom màggalu màggal suñu ci gi ci jàmm dellu ci jàmm te loolu la koy maye nag mooy ak dal ak sàmmonte ak xam ñi nga yor ñooy ñan ndax ay doomu aadama bakkanu doomu aadama dafa diis lool te euh, saa bu demee te sababoo ci nit euh, boo mun njëgalu yàlla loolu la man na ko caa fekk ëllëg. di sant itam ci seen jéego yi ngeen ñëw yéen waa Fadal prévention. ak sëñ Fallou ni mu ko ñore woon ba mu génne code de la boppam. te moom mu xamoon lor ji ci war a jóge te aw làmmiñam barkeel dëppoo kun fayekoon nga xam ne lu mu wax rek moom di di di di ñaan ci ñaanuk si Mahamadul Bachir gi mu ñaanoon ci extra yi bismil muhaymini mujriha bi xudratihi subhanahu wa mursiha ala mahali subla salaami bi idnillahi salikatan tabaraka allahu fi xallin wa murtaxali فالله يكلأنا فيها ويعصمها من المعاطب في سهل وفي جبل ñaanu accident la moo taxoon mu way ko kon na ko ñëpp yi barkeeloo bu ko yore benn loxo wala ngay socc mbaa ngay wax téléphone mbaa ngay geesu mbaa ngay xool leneen kon nag yéen sama bokki safoor yi na ngeen xam ne métier mu noobal ngeen yor bu leen xeeb seen bopp bu leen foyee seen bopp ndax ruu yi leen yàlla dénk ngeen war koy sëf di ko yóbbu ci ay barab xamu leen ruu yooyu lana ci ne ak ñana ci ne te ku nee ngi ci danga xëy ba ngoon ñi ngay sëf xamoo ay jinne lañ xamoo ay wàllu yi lañ xamoo lu ñu na leen gisee rek nga leen di sëfe te mën nga cee wax nit lu tuuti rek sa mbir mépp yàqu ci ba faw mën nga cee teral nit it teraa nga ju tuuti yëg ko rek fonk ko naxanteek moom rek mu defar sa mbir mépp mu def ci mu dox ci defar moo tax bis boo xëyee rek koo gis ko gis rek jàppal ne tey jii ci kii li sa mbir nar a defaroo waaye it na tiit ne ah kii de bu ma tey bu mën naa cee dox ba faaw. kon ñaar ñooñu rek fi kii mën nga cee defaroo kii mën nga cee yàqoo ñaar ñooñu rek ba leen bàyyee xel doo tooñ kenn doo ñàkki kenn teggin waaye yow chauffeur bi nag xoolal ña jógee Tamba Kédougou ña jógee Fuuta ña jógee Kajoor ak Bawol bàyyi seen kër bàyyi seeni i itte bàyyi seen liggéey ñëw ngir santale sëñ Tuubaa boroomam bii ci dëkkam bii di xool noo noo noo noo yore nit ñi andi leen ci dëkkam bii ba xam yelloo naag ni mu ko bëggeem déet te nag ma ngi lay nekk de ndax nag na nga xam ne sa jëf dara doyu la fa moom rek nga fa yaakaar te boo ko fa gisul rek dara jëru ko léegi nag xamal ne mbooloo mi nga yor kenn nga ci ñoom boo leen teralee naxanteeg ñoom boo liggéey boo gisee sëñ Tuubaa doo am kersa te dana la xettil dana la ram wala boo boo leen doyee dalee nag wala nga tooñ leen wala nga bëcc ngil leen loolu yaag sëñ bee du yaag ñoom kon nak lor rek warna tax ñepp maase di dox ndank di def ndank limay ñaan rek limay ñaan sëfër yëpp ñu maase ci ci siwaat seenum xel ta baña yakam yàkkamti seen adina ta xamne doomu adama euh, dafa am ak kon alal ji ngay wut ñom bu mu tax nga jox leen nga xagn leen seen ak waaw respecté leen ta fonk leen ta xamne gani seigne touba nga yor sam leen ba jox ba jafal leen tegg leen ci loxol seigne touba lolu ma ngi ko ñaan sëfër yëpp magal gi luñ luñ lu won ñu yok ko fexe ba zéro accident am waaw zéro benn accident bañ am loolu nag dénkaane la diggante taalibe ak moroom ma. moo tax mu am matuwaay yoo xam ne wax res koo jël ba sunu borom dimbali ñu matuwaay yooyu nag ba ci jiitu moo ñu respecté lii di code de la ñu sàmmoonte ak code de la route bu ñu nee code mooy li nga xam ne yoon tëral na ko ci wate yi ni nga xam ne noonu lañu ñu war a dawe ci kaw tali bi. loolu bu ñu sàmmonte ak moom foog naa ne lu baree bari dana dana wàññeeku ba ca topp ñu war a sàmmonte moom mooy defaraat oto yi euh, vérifier ko ba oto yi du am benn gàllankoor booy jóg sa oto gaari nga xul yàgg war ngaa xool say pën ndax pën yu baax na wala pën yi baaxul war ngaa xool say frein ndax baax na wala baaxul war ngaa xool see lamp war ngaa xool say essuie-glace ndax ci nawet lañu nekk war ngaa xool wata yëpp organe yëpp war nga ko xool bo xolé organe yëpp ba lépp tegu ci aw yoon mu leer la ne ki yow mi wolu nga sa auto nga dem def sa visite technique ñu xolal la ko ci lo xamanteni bi do ci waxtaan do ci masla ñu sét ko ba lépp lo xam xajna desna na ñu wan la ko ba nga matliko ba am sa visite technique bu mat suba sa wata man nga ko teg ci kaw tali bi boko ko ci kaw tali bi itam ngay ngay daw dag ndax li am solo rek moy aksi ci jamm ni nga xam itam moy transporteur yi ni ngay dikki Touba di dem ak di ñëwaat diggante Tuuba ak Ndakaar diggante Tuuba ak Kaolack diggante Tuuba ak Ndar loolu itam ñu wàññi ko boo dikkee boo sonnee nga noppalu nga jël sa oto nga jox keneen mu aw la boo gëmmantoo ngeen nekk ñaari chauffeur ci oto yi bu kii bu kii dawalee ba sonn wala mu gëmmantu mu jëm mu jox morom ja morom ja mën koo mën ko àggale ñu moytu si sart yi nga xam ne ñu ngi koy def ndax itam boo si sartee oto bi teg loo xam ne oto bi attanu ko loolu itam mën naa mën naa mën naa jur jëye ndax pneu yi mën naa toj moo xam ne nga si sart ci ci nit ñi mo xam na nga si sart ci ay bagage yo xamne sol nga ko bagage bu auto bi fess del ba attunu ko ndax bu ne auto bi kat xajna na une tonne la wara a seuf nga def lu ma 2 wala 3 tonnes su bo aussi lu ci lu ci bawo rek eh, day melni yow ya responsable loola ta nak li nga xamne moy joge ci màggal gi jëm ci wote yi man na defal auto yi xajna ci ndax man na juróom ñet milliard yo xamne ne bi ñu ko mujjee xayma non la tollu won kon loolu day melni ne eh, comme mi nga xamne mi ngi ci bawoo di dugg ci transport bi loola foog naa ne buñ ko buñ ko seet na ware nag woto bi am na ci àqam yoo xam ne war nañ ko ko cee jox ba oto bi baax chauffeur aussi am na ci àqam yoo xam ne war nañ ko ko cee jox ba tax du du firfiri du yàkkamti du du doxe nenn nii noonu buñ ko defee rek jàpp naa ne sunu borom mën nañoo dimbali ba ñu am ba ñu am li ñu bëgg ndax itam nag bari na jéey yoo xam day am waaye foofa dem rek da nga ko fekk loxob doomu aadama wala comportement doomu aadama wala jikkoy doomu aadama yoo xamante ni moo jur moo jur jéey ji kon nañu dimbali autorités yi ci fànn googu nañu dimbali force de l'ordre yi nga xam ne ñu ngi ci kaw télé bi ci fànn googu waaye surtout nañu dimbali sëriñ bi nga xam ne dafa woote te ñaan ñëpp ñëw ci jàmm magal ci jàmm dellu ci jàmm ci accident yoo xam ne accident yu néew lay doon su munta ñàkk itam waaye accident yoo xamante ni su munta ñàkk itam nag bakkan du ci rot kenn ci loru loraange joo xamante ne bii dana gàllankoor nit ki li nga xam ne moo des ci giir dundam yéen waa Fadal nag ñu leen sant ñu ngi leen gërëm ndax seen taxawaay rafet na ndax li ngeen def itam day acte citoyen boo xamante ne bii ngir dimbali ak jàppale seen mbokk taalibe la ak jàppale aussi seen ay dëkkadoo ci réew mi ba tax ba eh, accident yi wàññi liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ngeen ñëw ci jàmm dellu si jàmm. di waxtaan ak sunu mbokk safoor si. Euh, ñu la waa Fadal prévation yéen ñi war a màggal si yëpp yor seeni oto na ngeen def entretien bi. yàlla teg la ci yoonu jàmm boo ñëwee fekk fi jàmm fekkaat sax njaboot ci jàmm. ànd koog Fadal prévention ngeen ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm. sama mbokk safoor yi yéen laay waxal. loo yàgg-yàgg ci yoon yi ci indi mbooloo moo gën gaaw ci indiwoo dara. ñun la waa Fadal prévention daw ndànk accident yi doy